jot nañu taxaw wax ci ndax wax am na xam ne dañ ko doya dal kooku ko tontu lu ma koy tontu wax naa ko ci suba ba yaakaar naa ni les gens en ont même parlé <laughs> xam nga lu tax du ma ko tontu hmm. ça ne sert à rien de chercher la petite bête fu mu amul du ma ko tontu hmm. daf may tardel parce que y a plus important hmm. am la important mooy lan c'est un premier ministre mu dem ci suñu kilifa diine pour ne leen lii may projet falu nañu jàpp ngeen ci réew mi bët mu tane ndax jotoon nañ ci lu ne. Mhm. waaye seen i ñaan seen i jéego. am na fu mu ñuy indi tey. Mhm, mhm. président ñëw na fi pour nuyu leen pour ñu sàkku seen ñaan man tamit en tant que premier ministre yéen message boobu Ousmane Sonko gisu leen ko. <laughs> xam nga lu mu def. Hmm. dafa dem pour ne leen ñaanal leen ma maa ngi jëm sama déclaration politique générale. Ah. <laughs> jàngat boobu jàngat nga ci def. daf leen ne. Hmm. ñëw naa projet bi mu ngi nii am na. proposition yu ñu ci am. Mhm. dinañ dem jooyanti ko bu dem wax ko bañ ko war a waxee Ousmane Sonko dafa dem tàggoo pour dem ci déclaration politique générale man loolu laa gisee. mais gis na tous les autres qui parlent là di wax ay yoo xamee ni féewale non nous sommes un pays. Mhm. éminemment religieux. mais Birame rôle euh, taskatu xabaar itam da ci da ci da ci da ci taxaw foog ñu foog ñu wax ci. xam nga liggéeyu kan la lool. Mhm. CNRA. correct bu ñu defoon seen liggéey normal. man mais peut-être plateau bi man mën naa du ma fi toog sax boo moytu. Mhm. ne non kii euh, deful liggéeyam. wala mhm. il ne peut pas faire mhm. mais correct ak sénéra bu ñu defee seen liggéey normal teg ay sanction ci ñu war a teg sanction normalement. xool li ñu war a bind de la presse. xool luy éthique déontologie appliquer le ko à cent pour cent mais duñu sonn. am na journaux yoo xam ne dañuy chaîne YouTube yoo xam dañuy tëj. Mhm. am na peut-être télévision yoo xam ne mhm. bi sax. non <laughs> déedéet waaye soxna yaa ngi sant lu baax a baax mën ngaa lii ci poñ boobu rek ñu ah, tàggoo waale. xam nga maanaam. Mhm. Euh, nit ñi des fois dañuy wax ay wax yu terre à dafa am ñoo xam ne dañuy nekk di xool duñu maanaam bu ñu gisee lu baax duñ ko wax dañuy seet rek ay faay ñu koy wax parce que tey jii lañ la lañ fi doon wax ñii gëmuñu tarixa yi. ñii buñ fi faloo kër kër diine yi la njëkk a tey jii Diomaye président Diomaye seetiwul euh, Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu koy ñaanal mu yàgg fii loolu te wér mhm. borom toogaay bi jekk ba ca daaru minam mhm. ba mu fa demee wane wu fa yar ak teggin gu mat sëkk mhm. ah léegi nag Ousmane Sonko lii bu ko defee da ko war a def bu ko deful da ko war a def seeti kilifa diine yi ndax kilifa diine yi nag dañoo déggu suñu borom te réew mii bu amee jàmm ah kilifa diine yi joué nañ ci rôle bu mag ndax yàlla da leen a rus jërëjëf kon nag nit ñi nañuy bàyyi wax yoo xam ne day indi ay jaxase Euh, sëriñ euh, sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mm-hmm. sëriñ Babacar Sy Mansour ak yeneen kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp mm-hmm. benn bopp lañ kenn mun leen xar ñaar mm-hmm. nañuy bàyyi wax yoo xam ne day indi ay jaxase yaa ngi dégg ci teguñu ko fenn lépp rek jëmale ko ci politique lu ne ñu bëgg ko politiser léegi dëkk bi lépp lañ ko politiser mais benn instant doo comprendre jërëjëf Omar waxtu bi